rahim wa sallallahu ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk yi kàddu yi nag dina xaw diis ci ma lool ndax samay kilifa rek ñoo njëkk yëkkati ay kàddu waaye ndaw moom darajay ka ka ko yónni rek lay tollool kàddu yi nag lislaam képp ñoo am lu leen naqari ndax kat Sénégal bu ci génnee këru diine ji senegal day jeex te ki nga xam ne moo ñu yebal yor gàddoom teel naa yëg doxalinu yàqkat yi teel naa yëg doxalinu ñi nga xam ne mag ñi rek lañu ñu contre la ñu bëgg yàqal seen liggéey te liggéey boobu du yàqu moo taxoon sëriñ bi waxoon atam ni nañu bàyyi di wax këru diine yi këru diine yi nañ ko bàyyi di wax nañu wax këru diine ji benn diine rek moo fi am këru diine ji murit tiijaan xaadar laay ak mboolem turuq ci këru diini ji lañ nekk këru diini jooju nag ay mag ñoo fi nekkoon bale ko lay ko setal ko sellal ko baaxal ko ba dem ba ñu demee bàyyi fi ay ndono ndono yooyu nekk fa di liggéey ba ñu des ci ñun ñun nag ñoo toll ci yor puso bi nga ñu ñaan yàlla yàlla bu puso bi réeree ci ñun taxawaay yi nag mooy waral puso bi du réeree ci ñun moo tax sëriñ bi nee na képp koo xamante ne ab jullit nga nga bokk ci ab tariqa yëgal ni audio yooyu lu la naqari la lu la metti la dinañ ci xeex ci biir dañ ko xeex ci biti xeexu biir gi nag mooy tàllal loxo borom subhanahu wa taala ñaan yàlla xam ne ne kenn ci mag ñi rek bu toogoon kenn ci xalifa yi bu toogoon far ci baatinam ak maqaamam moo léem yoon yooyu waaye bu boobaa du safe lii safe dëgg mooy ñun ñu xam ne këru diine ji am na lu ñu defal ñu nan lañ defal këru diine ji lan la ñuy faye maam Cheikhul Khadim lan la ñu taxawee pour fayal Seex Seydi El Hadji la ñu taxaw pour fayal maam Baye Niass ak mboolem mag ñi mooy ñu wàcc sur le terrain ànd ak ñëpp naqarlu lu war a naqarlu xeex lu ñu war a xeex ànd ak dignité ànd ak yar ànd ak mbaax ànd ak dal waaye ñu ngi ñaan yàlla ci maa xam ci barke ñu jóge màkkatal mu karabat ñëpp ñii nga xam ne dañoo taxaw pour xadamal yoonu mag ñi yàlla yàlla nax saayal leen ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye sëriñ bi ni seeni kàddu doy na sëkk ci seen i taxawaay doy na sëkk ci ay taxawaam Samb Bousso mi nga xam ne genn wàllam la léppam la bu taxawoon rek doy na ñu ngi ànd ak imaam Adama Diallo ak Alhaji Malick Diop ak mboolem fédération Serigne Mor si Dakar ñu ñëw ànd ak yéen ci Dakar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu